lu choquant donc yéen ñi nga xam ne euh, demoon ngeen fa pour ñu mm-hmm. def benn recap rek. wax mm-hmm. ñu lan moo xew foofu. d' accord luy xew déjà dañ koy ñaawlu. Mm-hmm. parce que violence bi nga xam ne gis nañ ko foofu. duñ ko woon faral di gis ci image yu Sénégal. ñu ci bari bañ leen wanee li nga xam ne moom moo am dañ doon laajte exactement. est ce que lii Sénégal la xewee. donc euh, comme ni ko gisee information dañu koy traité ba mu mat. ak ci la sans limite euh, xëy dem fi nga xam ne moom mooy Kayar bu ñu fa demee tamit. def nañu état des lieux comme ni ñu ko mën a tuddee mm-hmm. xool dégâts matériaux yi fa nekk muy mm-hmm. gaal yoo xam ne lakk nañ leen bi ñu demee sax fekk nañu ay gaal yoo xam ne ba tey fayagul parce que gaal yu mag a mag yi la mm-hmm. fekk nañu ay kër yoo xam ne ña fa nekkoon génn nañu gàddaay yóbbu seen ay bagage ay kër néeg yu tas ay foo xam ne ay toile la toiture yi ñun ñu toj ko ay station essence yoo xam ne lakk nañ ko moteuru gaal yoo xam ne tam également lakk nañ ko donc ñi nga xam ne ñoo yàqule dekk nañ leen suñu ay micro lañu ca wax moom mooy ne dafa am ay nit yu ñëw lakk ko ci seen ay kanam te ñoom mënuñu woon a fayu mm-hmm. dañoo obligé banque seen ay loxo bàyyi leen ñu def ñuy def ñu tuumaal nag comme ni ñu koy waxee ñi def ne dañoo bokk ci beneen côté bi ñu tuddee leen ay kayaar kayaar mm-hmm. ñoom bi ñu leen laajee ñu ne euh, sàcc nañu seen xaalis euh, gaañ nañu fa ay nit lakk nañ seen ay gaal mm-hmm. ba pare dem bàyyi leen fa Euh, comme ni ñu ko waxee benn pàkk du lay. Hmm. bu ñu jógee foofu tam ña nga xam ne ñoom la ñu tuumaal. ne ñoom ñoo def jëf joojee dem nañ ba ci ñoom xam naa suba incha allah dañu teg ñoom it euh, kaddu yi nga xam ne wax nañu ko. Mm. donc ñu ci mën a jàpp rek mooy li indi mbir mi ñoom nee ñu euh, dañoo am loo xam ne dañu koy tere benn façon napp goo mm. xam ne dañu wax ne day yàq géej gi te ñoom yàgg nañ ko tere mais dañoo gis ne ñee dañuy persister di ko def te ñoom fa teg nañ seen bakkan loolu duñ ko nangu. Mm-hmm. donc bi ñu demee euh, ñu jàpp ay gaal foofu ak yooyu ba delloo ko peut-être que ne jàpp nañ leen benn en mm. bi seen ay xale nag demee géej. ca caan leen attaqué lakk-lakk leen mu lakk-lakk yu métti ñooñu présentement ñi ngi entre la vie et la mort euh, ci op ñenn ñi ngi hôpital Saint-Jean de Diop bu Thiès ñeneen ñi ña nga ci hôpital régional bu Thiès loolu moo indi coow li ñoom nag neneen dañoo fay assumé nañ ko mhm. parce que xam bu ñu waxoon rek ñu ñëw du équilibre information bi mhm. mais ña yàqule dem nañu ñu wax lañu yàqul def dégâts yi parce que déjà bi ñu leen di laaj euh, ci xayma ne lañ xamuñu ko parce que ku si nekk am nga cinq gaal ñenn moteur yu bees dañu génne lakk ko euh, mais lu si gën a doy waar Passemane mooy bi ñu leen laajee ndax autorité étatique yi wala image yaa ngi noonu ndax autorité étatique yi ñëw nañu fa nee na à part ñun gisaguñu fa benn autorité étatique te gis nga lii bi ñu ko seetaanee mun na metti mhm. wala mën na andi lu gën a metti ndax ci suba ñun ba ñu fa demee hmm. ñu ngi gis ay gaal yu doon jóge Guet Ndar ca Ndar hmm. di ñëw ne dañuy fayu si dañ leen intercepté en pleine mer pour ne leen nañu dellu te ñu ne la wóor ne bàyyi guñ parce que nañ xool yeneen moyens yoo xam ne dinañ ñëw pour fayu te ñoom ñoo dëkk seen ay jabar ñii ngi ci Guet Ndar mm-hmm. ñii dañoo jógee ndax ñëw fii xam ku xam Guet Ndar xam ni foo dem ci tefes ñii seen ay mbokk ñu ngi foofu donc ñoom ñëpp ñoom ñoo ñoom ñoo bokk commencé woon na am cest à nga xam ne ñoo dëkk fii commencé di fitnaal mbokk mm-hmm. ñee ñi nga xam ne mm-hmm. xam nga moomoo dañoo dañoo jege yoon telement ci nga ñi doon xeex ak ñi nga xam ne ñooy waa Guet Ndar sowante wuñu da taxaw ki tefes bi di seen ñeneen ñi mm-hmm. donc gendarmerie moom mujjee ñëw seen digg ñun bu ñuy ñëw fekk na renfort gendarmerie maa ngi ne lan moo xew boobu xamaguma woon ne foofu la renfort boo xam ne pour man dañu jógee défilé ndekk ñoom fa la ñu nekk ñoom police gendarme ci seen bopp on dirait que nee nañ ñoom sax nekkuñu en sécurité parce que ñee bu ñuy taal lépp la ñuy taal xam nga ils peuvent arriver en surnombre c'est ça donc ji nga autorité yi nañu jóg ci ndaxte ñu ngi wax ne lii du première fois xeex bi yàgg na foofu peut-être am na kuñ fa rayoon bu yàgg mm. ñu wax ci waxaat ci bàyyi mm-hmm. ñii dañoo am mer am na ko ci ci rayaat am na non taal taal nit non boo gisee image yi image yi choqué na choqué goo xam ne euh, mm. ñu bari dañu dañu rawale mel ni ku nekk ci guerre parce que ci guerre nga daan gis nit ki jóge ci këram gàddaay dem mm-hmm. tey seen ay soxna seen ay doom lañuy yóbbu pour ñoom mën a ñëw jàmmaaloo ak ñee mm-hmm. donc gis nga ñi nga xam ne ñoo ci war a wax bu wala xeex am waxuma sax balaa ngay xool ku tooñ mais danga dem ca béréb ba bu ñu la denkee wàllum napp ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité étatique yi nañu ci jóg waxtaan ci balaa muy dégénérer parce que li ñu gis fee à tout moment dara mën na am bala nga koy xam nga dem sur les lieux hmm. te li ñu fa teg ci renfort gendarmerie wax ma sax manifestation te ñee dañoo jege yoo xam nga ay jege ñu ay nit tëj seen boutique ñee assumé ne ñoom ñoo ko def ñoo ko def li tax ñu def ko mooy dañoo taal seen ay doom te seen ay doom moo ëpp euh, euh, euh, moo ëpp valeur que dégâts matériels yi ñu def ñoom donc assumé nañ ko mooy ni ma ko waxee ñoom seen euh, kàddu bu subaa incha allah xam naa dinañ ko teg mais ñi nga xam ne yàqal nañu tam kàddu yi nga xam ne wax nañ ko ak dégâts matériaux yu nekk foofu yëpp bu ñu duggee sans limite TV mu nañ seetaan reportage bu ñu ci def. mi ngi noonu di dugg sax d'ailleurs alors euh, Pape Ousmane. non mais doy ah. déjà félicité euh, Ngoné ak équipe bi mu àndaloon. Mm-hmm. parce que. dégg dafa uuteeg. Mhm. dem fekkee xam euh, situation bi ñu fa demee. Mhm. Euh, te lii aussi li muy feeñal rek ci benn côté mooy faillite de l'État. Mhm. parce que anam gii lañuy ñuy nappee waruñu utiliser xeetu filet yi nga xam te daanaka lépp lay jëlaale. war a am parce que ci filet yi dafa am maanaam euh, norme bu mu war a respecter. buy permettre yow booy napp. yenn xeetu jën yu ndaw yi mën nga ko bàyyi parce que yooyu ñoo lay permettre ñu mën a assurer la reproduction mm-hmm. mais cest à yow booy nappkat man may nappkat mënoo nekk juge et partie léegi nag ñi ki waroon dox seen diggante moom mooy état mm-hmm. ci fexe réguler secteur mm-hmm. maanaam ñu koy topp di saytu di xool en réalité yan ci ay fiil yan ci ay xeetu napp maanaam ci fiile yi moom la ñu autorisé yan la ñu autorisé wu pour que ñoom ñu dox ci diggante nappkat yi léegi bu ñu demee nag ba ñoom ñu sentir que ni état faiblesse de l' état maanaam sentiruñ la présence de l' ci war a réguler loolu mm. ba ñoom ñu sentir ñoom ñooy taxaw nag ne waaw fajal seen bopp wala ne xeeti mm. nappin wii dootul amati wala xeetu fii de yu mel ni dootul dugg foofu ngay sentiree effectivement que ni dañ leen seetaan dañ leen bàyyi ak mm-hmm. seen bopp jaxal na leen seen bakkeel exactement alors que pour man war ñu yegg à ce niveau. Mhm. parce que tey dañu dem ba mbir yi dégénéré. yegg ci niveau boo xam te ne ça devient incontrôlable. Mhm. foofu laa lay wax ni wa état dafa waroon di amee liggéeyu anticipation ba nga xam ne duñ yegg situation gis nga lii yëpp xam nga lan la may lan la may fàttali en mhm. quelque sorte. su ngeen bàyyee xel même situation yu mel nii mooy am ci diggante. sàmmkat yi ak baykat yi. Mm-hmm, ñi dugg tool ci dugg exactement mm-hmm. te dañ koy dund saa su ne. ak bu ne. Mm-hmm. man li tax ma xam ko mooy damay jege par exemple ku mel ni Bachir Ba jiite euh, euh, kii. Euh, aar suñu moomeel. Mhm. di ci def liggéey bu am solo en terme de sensibilisation. ak ak ak di def genre médiation. Mhm. Mhm. ci diggante ñi nga xam te ne ñooy sàmmkat yi. ak baykat yi. ba dañuy dem sax ba benn moment boo xam te ne gis nga li day tey kat yi ba ñuy sentir ni y a l'absence de l'État. ñoom it noonu lañ ko sentir demoon nañ ba seen biir sax. ñu am benn projet bu ñu tëgg. ni comment on va faire pour am au moins. benn benn cadre. boo xam te mooy régulier yëpp et jàpp naa ni tey secteur de la pêche. loolu la soxla. Mm-hmm. mooy ni tey CLPA anam mm-hmm. mooy le comité bi nga xam te ne comité local bi yëngu ci wàllu pêche artisanale mm-hmm. gis nga da xool xam nga xam nga li graaw ci li mooy ni suñ demee ba nappkat yi seen bopp ñoom ñoo nekk en conflit alors que li waroon régler cette question mooy ñu am cadre bu buy réguler le secteur ñu mën a déggoo ci ne lii bu amul l'autorité taxaw ni lii amut. Mhm. lii moo koy saafara mais bu ñu demee ba loolu yëpp dañ ba ñu yegg à ce niveau ma jàpp ni nag liñ ci mën a dimbali rek à un moment donné mooy que ñu appeler les uns et les autres la raison. parce que tey ñiy xeex. Mhm. ñoom ñëpp soo xoolee am na lu ñu bokk. Mhm. tey li ñu bokk mooy napp gi. ginnaaw loolu soo xoolee ay mbokk lañ si biir parce que yow situation bi ngay présenté. ay mooy ñoo xam te ne daanaka sorante wuñu ñoo dëkkandoo donc nañu xam ni. violence bi ñu egg si seeni si seeni biir. Mhm. nekkul luy saafara yëfi mhm. du ay taal fii kër lakkante fii ak xeet xeet bi ñu koy defee man. Mhm. c'est extraordinaire. cest à boo demee ba yegg ci niveau de violence boobu taal nit. donc tu comprends un peu à la limite naan sax dafa jéggi dafa mel ni comme genre haine boo xam te ne doo xam sax noo koy qualifier. et man jàpp na loolu yëpp jaru ko nañu appeler les uns et les autres à la raison. et que jël cette situation à bras le corps mhm. te yaa ngi wax les forces de défense et de sécurité nga xam te surtout gendarmerie waroon assurer mhm. sécurité ña fa nekk mhm. ba mbiri du dégénérer suñ demee ba ñoom ñu sentir que ni xëy na bu dégénérer mën na daal seen kaw ci ngay comprendre que ni yaa exactement séparé leen mais ba kañ te doo xam ñoom way te doo xam mën nañoo ñibbi ñu préparé wu defaru xam nga ñu attaqué comme ni ñu koy gisee te loolu su taxawaay dëgg amul. Mhm. que ñu fexe ba li indi la situation. Mhm. ñu xool nan la ñuy def ba fay ko mais moo Dieu lu mel nii ñaanuma ko yàlla mais. Mhm. mooy créer ay situation xam mun na jëm ci ay guerre civile. ñaanuñu ko yàlla wala ay conflits yoo xam ne bu xasee ba installé wu. waaye dafay difficile pour ñu. donc état ci ci la bokk mais comme dafa nekk benn communauté. boo xam ne communauté libu la. nañu interpeller Grand Serigne de Dakar. les ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaraaf yi mhm. nañu déplacé wu dem mhm. parce que tam nu ñu mën a wax xam nañu ne naqari nañu deret lool mhm. mais am nañu ay kilifa te nañu dégg donc bu fekkee ne état dafa tardé à réagir ñi nga xam ne ñooy jaraaf yi ñoom ñooy grand serigne de Dakar nañu déplacé wu dem toog xool nu ñu waxtaanee. Mhm. moom moo gën parce que lu ñu mënti wax. ñoom ñoo bokk. Mhm. Mhm. voilà mi donc ñu ngi euh, xaar di am yaakaar itam euh, autorités yi comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne moo di jaraaf yi ak yu mel noonu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, les autorités étatiques xam naa ne du du ñàkk de dinañ am taxawaay. ci loolu parce que tam xanaa bu ñu seetaanee Salim comme ñoom ñëpp Salim dañuy seetaan bu ñu leen interpellé. loolu mais état warul am taxawaayu réaction chaque fois. action réaction. malheureusement buy am sax dafa war a gaaw pour man. malheureusement parce que situation yu mel nii dafay dafay xaw a délicate